ci silsila yi waxtaan yi nga xamante ni moom la amal bis bu nekk te comme ni ma ko waxee dara warulu ko dul sàkku ngir mande yàlla ak njéggalam sàkku jàppaleem ak e, tawfiqam e, fa tabarakallahu bokk jàngataat alquran waaye jàngataat sunna sayduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam e, fa tabarakallahu waaye tamit gën a gëstu sunu diine ndax diine ji ñu yor mooy diine diiney iqra diiney iqra waaw diiney jàngal donc la première injonction divine hein, le premier ordre le premier ordre bi sayyiduna muhammad sunu soppe bi sallallahu alayhi wa sallam njëkk jot ci yàlla mooy iqra jàngal wala liiral wala fàttalikul wala ku nekk ak tolluwaayam ni muy firi iqra waaw waaye daal l'essentiel mon iqra day tourner toujours autour autour de la science mon science livresque ak science céleste science euh, euh, humaine ak science exacte. science naturelle science expérimentale technique science euh, explicative ak science gustative yoy yep, mon ngi mon ngi ngi loolu yëpp mu ngi laxasu ci biir iqra kon nag euh, tabarakallahu euh, ñun li ñu war rek mooy sant borom bi tabaraka wa taala bu baax waaye tamit fu ñu toll ñu taxaw nag ci di wéru ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak i jàngaleem ngir mën a gëstu ak taxaw nag défendre l'islam ci bépp taxawaay yéen ñëpp xam ngeen ni fan yi yëpp am na liggéey bu ñu tàmbali mu jëm ci euh, euh, benn borom xam-xam benn astrophysicien bu ñuy wax Stephen Hawking tabarakallahu bokk ci ñi ñu gën a déglu ci siècle bi ñu nekk waaye tamit euh, di ku influencer ñu bari waaye nag li tax ñun ñu in intéressé wu ci mbiram du euh, science bi du astrophysique bi du xam-xam yooyu yep déedéet loolu lu ñuy la lu ñuy la ndax lu am solo la waye nak li tax ñu intéressé ci mbiram moy dafa dem ci biir xam xam dem ba ne Dieu n'existe pas indi ay argument pour justifier ne yalla amul donc c'est notre devoir en tant que disciple en tant que membres de la communauté du prophète dans Mohammed sallallahu alayhi wa d'apporter notre réplique et nos, réponses euh, argumentées, hein, basées sur les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa et des savants de l'islam. C'est une obligation. Car si on ne fait pas attention, il continuera à être un maître penseur, une tête pensante un vecteur directeur et une référence pour beaucoup de gens, surtout pour la Ummah du prophète Mohammed, des membres de la Ummah du prophète Mohammed, ce qui est très grave et très dangereux. Donc, euh, c'est pour cela qu'on compte, Inch'Allah, étudier son œuvre, ses œuvres, ses thèses, ses réflexions, ses, ses idées, ses arguments, et maintenant utiliser Hein, euh, les, moyens et les capacités de déconstruction du prophète Sidna Muhammad pour déconstruire son argumentaire et son argumentation pour ensuite maintenant construire, Inch'Allah, euh, euh, les bases de la foi en Dieu et de l'amour du prophète Sidna Muhammad Et cette construction mohammedienne, personne ne peut la démolir, personne ne peut la, ne peut détruire, Inch'Allah Donc, euh, Alhamdulillah, hier, on a eu euh, l'honneur et le privilège de recevoir ici le frère Haj qui nous a fait une présentation, bien que brève, de euh, cette personne, de, cette, de ce savant, de ce chercheur, euh, qui est Stéphane Hawking. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Et on en a beaucoup tiré comme connaissances, euh, connaissance, comme, comme, comme information euh, par rapport à lui, par rapport à sa formation, par rapport au domaine dans lequel il excellait et surtout ce qu'on appelle les trous, les, trous noirs. Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hier, on a appris beaucoup de choses avec le frère Haj Diogoboch. Inch'Allah, aujourd'hui, Inch'Allah, Nyogu va nous parler de, euh, des thèses même, des idées, des arguments que Stephen Hawking a avancés pour prouver, pour essayer, c'est pour cela qu'il faut bien lire le titre, pour essayer de prouver l'inexistence, la non-existence, euh, l'inexistence de Dieu. Donc aujourd'hui, on va voir ça, Inch'Allah, avec le frère Haj Nyogubot. Euh, Alhamdulillah, c'est l'occasion de remercier les frères qui sont à l'origine de ces euh, recherches qu'on est en train de euh, mener depuis quelques, quelques semaines. Haj Modou, Masina, Haj Rasinli, Masha'Allah. Euh, merci pour cette ouverture, cette, ce champ que vous avez défriché, élaboré pour qu'on puisse essayer de, de semer les germes de la foi et de l'amour du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa après avoir déterré hein, les, euh, les pourritures de l'insouciance, de la perdition et de, de, la mécréance. Qu'Allah nous aide et nous assiste par la barque du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa Donc, aussi pour dire aux frères qu'il n'y a pas de souci, Inch'Allah, cette émission va se faire en Wolof, mais il y aura une, une, un direct spécial consacré à, à, à, au résumé en français de tout ce qu'on vient de faire. Et c'est pour cela que j'ai tenu à ce qu'on soit méthodique et euh, vraiment rigoureux dans cette euh, approche qu'on veut euh, mener par rapport à, à, aux thèses de Hawking, car c'est un scientifique, donc c'est une obligation pour nous aussi d'emprunter les, les, moyens scientifiques, les méthodes scientifiques, hein, les procédés scientifiques, les paradigmes scientifiques pour pouvoir euh, répondre à, à, cette, à, ce, à ce géant de, de, la science euh, contemporaine. Donc, Inch'Allah sans plus tarder, je vais euh, accueillir le frère Haj Ndiogoubouch, Masha'Allah, qui va intervenir pour euh, nous donner maintenant, euh, les euh, arguments de Hawking pour dire que Dieu n'existe pas. Inch'Allah ta'ala. Donc, nous sommes nuyu ñi ak ñun, gis nañ ni suivre direct bi, moy fi ci Facebook ak plateforme yi YouTube, waye tamit intérêt bi ngeen ko jox ndax dafa am benen euh, visage bu ñu wane ci islam bu ñu wane ci Facebook bi même wane ni euh, jotaay yi du tak rek tok rek di tari ay di firi waye tey jii on interroge les scientifiques hein les scientifiques du prophète Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ha les scientifiques du prophète Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam te ku scientifique yonent bi euh, do watul nga sànku parce que sa science daf lay mujj gaañ science deug scientifique deug moy ki nga xamanteni da fay wéru ci yonent bi nga xamanteni mom la Cheikh Tijani tuddé aynul maarifi tuddé ko al ha'itati bi markazi al wuhumi wal maani haj ñogu assalamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullah haj ñogu mbot ñoo ngi lay ziara sëriñ bi maa ngi ziara jërëjëf maa ngi ne maa ngi nuyu bu baax di ziara mbokk yëpp jërëjëf jërëjëf mbóoj alhamdulilah yow it ñoo ngi lay nuyu la ziyaara Mbodj. Ah, alhamdulilah ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi nuyu bu baax ñëpp di mbokk yëpp mbokk yi suivre yëpp. alhamdulilah eh, di ñaan yàlla yal na yàlla barkeel lépp incha allah. amiin amiin amiin yaa rek. ñaanal kilifa yi ñaanal wéjur yi ñaanal ñëpp ñi nga xam seen wéjur jiit nañ jiit nañ leen yal na yàlla yërëm te yéex a yàlla yóbbu leen ca àjjana fi incha allah yal na yàlla barkeel lépp incha allah. amiin parce que ñoom ñu ziar tamit mbokk yëpp sax. di ziar mbokk yëpp mooy mbokk yi euh, participer ñuy suivre ñi nga xam ne tamit ñoom ñoo ñëpp xam-xam ne teewul ñoom ñu toog ci ginnaaw dañuy déglu rek. ndeysaan ndeysaan yal na yal na yàlla yéwénal lépp yal na yàlla barkeel lépp yal na yàlla jubal lépp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Euh, jërëjëf xaaj bu baax. di la ñaanalaat bu baax ndax démb c'était pas facile et puis c'est un domaine très euh, vraiment euh, sensible très compliqué et mhm. c'est un domaine aussi boo xamante ni euh, c'est pas trop pratiqué parce que du ñëpp ñoo ci ñoo ci ñoo ci nekk dafa mel ni sax ñi ñi ciy yëngatu dañ leen di wàññi avec les doigts de la main donc euh, domaine bu domaine bu bu rare raar la macha allah waaye nag alhamdulilah góorgóorlu nga ci bu baax parce que mooy li may wax toujours l'important c'est pas d'impressionner pour dire pour ñu wax ah sëñ bi taxaw na ay na naxwoog ay na ma euh, grammaire ak wala am na maarifa wala euh, dafa dégg lii ak dafa dégg laa déedéet man loolu ça m'intéresse pas parce que loolu du indi payuk yàlla ah te loolu kenn du ko fekk sa biir bàmmeel appréciation nit ñi fii la yem li am solo man man li ma intéressé mooy soo ma dégloo rek comprendre li may wax waaw

ma bokk fekk ñëpp comprendre nañ li ma doon wax donc euh, yow it démb macha allah pas été très compliqué yow sa bopp loolu laay bëgg a wax da nga ñëw rek daal def la def fayda euh, dimbali ñu parce que ñun nous sommes des euh, des profanes lañ koy wax ñun ay littéraires lañ de de formation ñi ci des tamit même s'ils sont scientifiques domaine bi ñuy wax c'est un domaine réservé à mu ngoog à quelques-uns waaye nag mm. li am solo rek mooy ñu comprendrante ante macha allah te gis naa démb tamit une certaine assistance macha allah euh, gis naa ku mel ni Sémou Niang moo ngi daw léeg mu gis ay mots yooyu wax di di ko wër mu bindal la ko euh, donc yeneen scientifique yi nekk ci biir wala même ñu dul scientifique di gëstu ku mel ni Massamba Gueye gis naa ñoom ñëpp ñoo ngi dugg pour jàppale la Hadj Omar Niang ñoom ñëpp parce que xam nañ ni c'est un thème très sensible. Euh, te dafa laaj euh, benn minutie ak benn taxawaay bi su ko defee nag démb alhamdulilah yéen ñu suivre ñëpp xam ngeen Stephen Hawking fi mu juddoo ak euh, les signes yi am ci digganteem ak Galilée ak digganteem ak Albert Einstein dégg ngeen tamit feebar bi ko dal à lage de vingt ans la maladie de Charcot muy dox ba. top yoonam ndax ay waajuram ay scientifique lañu ay médecin lañu won woon dañoo bëggoon moom mu nekk euh, médecin wala yu demee noonu waaye moom li ko intéressé woon mooy affaire physique ak ak ak ak euh, astronomique ak xam-xam yu mel noonu donc ci la dem ci la dem ci la dem ba euh, spécialisé wu ci ba am ci cër ba di wax ba découvrir loolu ñuy wax les trous noirs ah donc trous noirs yooyu am na xam-xam bu rëy bu mu ci feeñal am lu mu ci junju Euh, prévenir ci waa àdduna am yum ca wax waaye nag ñun li ñu intéressé ci moom mooy dafa dem ba ci biir daal di bàyyi astre yi bàyyi euh, euh, bàyyi cosmos bi mooy cosmologie bàyyi astre yi bàyyi planètes yi bàyyi galaxie yi bàyyi étoiles yi bàyyi yooyu yëpp daal ne lii daal moo bind boppam ñun nak fofu lañ taxawé ne ko déedéet au oh king defal attention defal attention yow sa bop rek mënoo bind sa bop yow bindo sa bop ndax so bindon sa bop do dem ba am maladie de Charcot do dem ba am synthétiseur vocal do dem ba mënatoo wax do dem ba euh, yëngatu sa muscle yëpp dé do dem ba dé kon nak il faut que ñu duggal la ci école yonent bi même bu dee pour corriger la ngir keneen ku bëgg ñëw ci ginnaaw bëgg wéeru ci say argument pour we pour pour pour pour dëggal li nga li nga li nga dëggal pour weddi euh, ñun li li ñuy dëggal ñu xam ni euh, yow corrigé woon nan la ko kenn waru ko bàyyi su ko defee nag tey dañuy dem ci beneen waxtaan wi démb dañoo présenté ki wax wax ji euh, fan la formé woo loolu ñi ko suivre ñëpp de gis nañ ko waaye tey dañoo bëgg indi nag moom argument yi mu yi mu wéeru pour wax ne yàlla amul su ko defee nag bu subaa ñu indi ñu nit argument yu euh, yi ñu am jëlee ko ci alquran jëlee ko ci sunna jëlee ko ci njàngalem imaamu Ali ibnu Abi Talibin waaye tamit suba da da aw king mii duñ ko duñ ko bàyyeeg yonent bi déedéet ëpp na ci moom duñ ko bàyyeeg Seydina Aliou sax ëpp na ci moom duñ ko bàyyeeg saxaaba yi duñ ko bàyyeeg taabiina yi duñ ko ak sax Maulana Cheikh Ahmed Tijani ëpp na ci mom dañuy dem rek jël Cheikh Al Hadj Omar Fouti waaw mom lañuy jël mom mu wax ak king ni wax ko lu leer inshallah taala bu suba fi lay xewé bu ko kenn tardé ñu ñu xol dajé bobu ñu jël argument king ni tek jël argument Cheikh Omar ñu tek ñu xol nan lañu aduna di atté yalla ñu yalla boole dimbali ñu ñep kon tay suñu yalla dimbali xaaj Ndiogu euh, dañoo bëggoon inshallah taala euh, nga. indil ñu ci yan argument yan idée yan réflexion yan xalaat ci la Hawking wéeru ba xëy ne ah astre yi ma doon gëstu ba def ci ay thèse de doctorat ba def ci ay publication ba def ci ay gëstu ay xam-xam monde bi sax léegi sax jéggi naa lépp kenn bindul dara waaw argument yi argument yi mu yi mu yi waaw kay li mu lan weddi ba noppi ak argument yi mu wéeru pour weddi la mu weddi ndox Hawking oh, dafa mel ni weddiwul rek sax nekkuk yàlla weddi na euh, yowmal qiyaama weddi na barzax weddi na atte malik yow mi diin yow mu diin bi su fayantoo yooyu yëpp weddi na ko donc njëkkeel ñu ci li king weddi ak yan argument ndax scientifique duy weddi du weddi euh, gratuitement hein, et fortuitement déedéet dafay weddi euh, avec des arguments solide li gars fii c'est du béton te Hawking mi yaakaar naa ni euh, tabarakallahu béton bu dijj bu dijj bu dëgër basalte bu wóor moom la yor waaye keroog fii doo leen suivre waxtaan wi Seydina euh, laaj nañ Seydina Alioune ne ko ah, euh, armée yàlla yi ci kaw suuf lan moo ci ëpp doole xeer la wax mooy comme lu mel ni béton xeer la waaye ca saa si bañ ko laajee ne ko waaw xeer lu ko ëpp doole lu mu wax dane weñ moo ko ëpp doole weñ kon ñun fas bu subaa fas yéene nañ tey dinañ samp xeeram waaye busu baa fas yéene nañoo jël weñu yonent bi weñu Cheikh Tijani weñu Cheikh Umarul Fouti ngir damm ay xeeram incha allahu taala ngir foofu ñu tabax ko ay jàkka ki juma ak bërëb yi ñuy tuddee yàlla ma nga kon ci suñ jógu bismillah yow la mbokk yëpp yëpp yëpp yëpp di déglu tafaddal mashkuran incha allah bismillah alhamdulilah sëriñ euh, jërëjëf maa tamit euh, ñëwaat tamit <laughs> donc yàlla yàlla di yàlla dimbali incha allah yàlla yàlla barkeel lépp. Euh, ñoo ngi comme ni nga ko waxee rek de passage euh, gars yi participé woon yëpp ñoom Seydou ñoom kii ñoom Aïssatou ak ñoom ñëpp allah moom te xam naa tey moom tamit dina am tamit benn domaine boo xam ni man dina ko war a gën a après. ok incha allah. elle est la bienvenue elle peut elle toujours. Euh, mën intervenir ah waaw bon loolu après ce par rapport au au la naissance et tout ça loolu lépp aussi day ñëwaat ci théorie

voilà mi ngi mi ngi juddoo ci dëkk boo xam ni la majorité elle est croyante ñu nga léegi moom euh, en fait moom comme dafa nekkoon à l'aise ci affaire physique moom ca la ca la ca la ca la sóobu ci yoon bi comme ni ñu ko waxee woon démb rek après ci la doon indi aussi ay brève réponse li ñu naan brève réponse aux aux grandes questions am na benn livre boo xam ni moom sax publié na ko ñu ngi ko tuddee brève réponse à grandes questions euh, ku demoon ku demaat aussi ci PDF drive comme ni ma ko waxee woon démb nga ko wax fekk donc foofu moom répondre na fa question bari bëri ñu ko ñu ko posé woon mais euh, daanaka li ko li ko gën a li ko gën a kiiwal euh, tax mu nit ñi gën koo gën ko bàyyi xel mu def le bul son bi mooy dafa dafa waxoon ni moom gëmul yàlla yàlla amul hmm. loolu nag moom ci lu ko teg parce que euh, dafa am benn phrase bu bu bu bu bu bu Albert Einstein waxoon mu ni Albert Einstein dafa waxoon ni Dieu joue au dé loolu waxoon joue au dé loolu la Einstein waxoon euh, Einstein dafa wax ni euh, Dieu ne joue pas au dé maa jégalu Dieu ne joue pas au dé mhm. ah, ça veut dire Dieu ça veut dire yàlla def ci hasard mu waxaat tamit ni euh, le hasard c'est le nom que prend Dieu quand il veut passer inconnu waaw Einstein bu waxaat na loolu tamit waaw loolu léegi nag moom aucune bi mu ñëwee wax na ni moom dani non non non seulement Dieu joue au dé mais il les laisse parfois là où on peut voir. phrase bi leer mais il faut nga firi de. waaw non seulement Dieu joue au mais il les parfois là où on ne peut les voir maanaam euh, dafa dafa contredire Albert Einstein li mu wax. Mhm. moom mii ne joue pas au kon moom gëm na hasard waxu hasard mu ñëwaat tamit hasard tamit. c'est le nom que prend Dieu quand il veut passer inconnu. Mhm. Moi, at lol. Mon mignon dans Dieu ne joue pas, euh, non pas, non, non seulement Dieu ne joue pas au dé, mais il les jette parfois là où on peut les voir. Man, j'ai dit, moi, dans les milieu qui, dans le phrase me dit, rek, mom, résumé na, mom, dans le lico, lico, lico, liko, Ça passe pas. Ça passe pas, moi. Dans le lico, lico, lico, te, résumé na Mais mom, ci la waxat dans tamit, euh, ni, ni, l'univers n'a pas de commencement unique.

comme ñun dañoo nekk ci benn ci benn univers boo xam dafa nekk infiniment dafa de lu naan infiniment petit infiniment petit da ko wax léegi mu ni am na ay euh, proton ak ay euh, euh, électron nee na ñoom mën nañoo jugee fu ne buñ te buñ jugee fu ne mën nañoo disparaître fu ne te buñ disparaître fu ne mën nañoo apparaître fu ne léegi mu ni loolu su fekkee su fekkee univers dañoo wax ni moom ci benn dànk fa la jóge mooy le Big Bang le Big Bang de passage mooy li ñuy wax ni euh, ah, univers dafa nekkoon benn masse compacte après ci la explosé bi mu explosé ca la moom moom euh, ca la ca la yëpp feeñ ca la galaxie feeñ ca la ca la étoile yi feeñ yëpp a ngi ak loi yi nga xam ni gravité euh, loi gravitationnelle yi nga xam ni yëpp feeñ na ci ak tamit mbir yi daal mbir yi àdduna bi ni mu ni mu ni mu demee wax na ko mu ni puisque am na puisque proton yi ak électron yi <clears throat> ñoom dañuy feeñ fu ne te tamit mën nañoo disparaître fu ne pour mën a après daal si leen mu ni kon masse compacte boobu nga xam ni moom moom la ñuy wax ni moom mooy départu Big Bang mu ni masse compacte boobu ay yeneen électron ak ay yeneen proton ñoom ñoo disparaître